gannaaw bu Serigne Mountakha xalifa général des mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér joxe ndigal Serigne Abibou Mbacké ne na Touba ca kanam jàppale maaw rahmati Serigne Abibou mbake ci yaatu dënnam ak ci esprit de rassemblement dajale na mboolem kuréel yi nga xam ne dañuy yëngu ci ndox mi waa OFOR ñi nga xam ne ñoom am responsabilité forage yi waa maaw rahmati association plombier waa reteet ak képp koo xam ne ni ndox mi sa yitte la dajo na ñoom def ay waxtaan déglu leen ñu wax ñu lan mooy seen yitte ak fan la ñuy seenu Touba ca kanam ci mu jàppale leen mbokk yi boobaak léegi nag Touba ca kanam dox na ci ay jéego ndax lépp lu jëm ci wàllu pièce plomberie yi nga xam ne ni forage soxla na ko déglu nañ leen wax nañ ñu ko Touba ca kanam jënd na ko jënd na pièce plomberie pièce électrique jënd na ay colonne colonne yoo xam ne nag ah bokkul ak yi fi daan nekk ndax yi ay PVC la du xuur du bënn wuteeg colonne yu weñ yi nga xam ne gis ngeen bu ñu ko dugalee ci biir forage bi ni muy mel waaye mbokk yi Touba kanam yemu ca jënd na juróomi pompe Touba ca kanam yemu ca jël na ay borom xam-xam yoo xam ne ñooy xëy di yëngu ci liggéey bi yaakaar naa ne élément de fit yu ci bëri ak yi ci gënoon jafe Touba ca kanam def na ko waaye Touba ca kanam yemu jël na ñaari entreprise ndax kat gannaaw waxtaan wi nga xam ne waxtaan nañ ko ak OFOR Touba ca kanam jël na fukki forage yoo xam ne benn bu ci nekk dina def entretien bi waaye du teem dina ko saytu dugal ay caméra ca fan ndox may balee ñu xool ba xam yan jafe-jafe moo nekk ci forage def entretien bi liñ ci mën a liggéey léegi ñu liggéey ko def entretien bi xamit yan jafe-jafe la forage bu nekk am mbokk yi loolu Touba Kanam jël na ñaari entreprise yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci loolu liggéey bi nag tàmbali nañ ko yoonu Daaru Muxti xayra Kër Ñang kon mbokk yi Touba Ca Kanam kat ndigal ko sëriñ bi jox sëriñ Abibu nee na amul lenn lu mën a dox seen diggante ak jëfe ndigal loolu ba nga xam ne xelu sëriñ bi dina daal ci ndox mi boo xaymaa li Touba ca kanam defagum ci ndox mi mbokk yi ak mboolem li ma leen fi limal ci pièce plomberie électrique logistique entreprise yi ñu jël di leen liggéeyloo ba ci ndaw yu sawar yi nga xam ne ñooy nekk ci terrain bi di plombier yi motivation yi nga xam ne dana tax ñu gën a sawar ci liggéey bi loolu lépp boo ko xaymaa ak pompe yi nga xam ne Touba ca kanam jënd na ko loolu yëpp boo ko xaymaa Touba Ca Kanam defagum na ci ndox mi téeméeri million ak ñaar fukk ak ñett cent vingt trois millions noppeeguñu ndax kat yitte ji mooy ndigal li sëriñ bi joxe sëriñ Abibu ak Touba Ca Kanam nee neen leral na leen lu nekk lépp lu ñu yor mën nañ ko cee def ngir sëriñ bi am lu mu bëgg mbokk tey nag directeur général OFOR ñëw na nemmeeku si liggéey bi nemmeeku si liggéey bu solo bi nga xam ne it gannaaw bi Touba ca kanam jotee ndigal li mi ngi koy def ànd ko nag ak élément yi nga xam ne mooy waa OFOR ak waa Maawu Rahmati association plombier yi ak waa reeteet Touba ca kanam dalal ko ca forage u Kër Ñang fekk pompe yi nga xam ne war nañ koo soppar ñi boobu ci la bokk gan gi nag bi mu yegsee nii lañ ko dalalee nii lañu foo fa mbokk yi liggéey bi ngeen di def surtout li ngeen def nii aussi geste bi geste bu noble la geste boo xamante ne oforan ko euh, rafetlu bu baax a baax te incha allah su ma yeggee dinaa ko yeggali suma ministre wax ko ne wax dëgg yàlla taxawaay bi ngeen si ti taxawaay bi ngeen si taxaw parce que offort peut-être am nañ pompe yi mais problème procédure passation de marché mm-hmm. day tax da fi mu nekk ni day day day day day xaw a yéex donc suñ gisee yéen seen réactivité mm. loolu day tax liggéey bi gën a gën a efficace mm. di communiquer ak population yi wax ne comme ni nga ko expliqué wax ne problème mu ndox euh, Touba ci màggal bi du am zéro pour cent loolu moom dina xaw a jafe mm. ndax suñu waxante dëgg rek besu màggal bi suñ jëlee ndoxu Sénégal yëpp ànd ko Touba soo moytu aussi du du doy te ni koy defee noonu wax dëgg yàlla loolu la ministre bëgg loolu la président bëgg ndax wax na ko sax barki démb ci conseil des ministres donc wax dëgg yàlla comme des benn weer rek a ci des liggéey ci liggéey bi nañ continuer noonu maintenant ni ngeen ko waxee noonu ñu koy teg ci dëgg teg ci communication teg ci waxta nga xam ne benn benn objectif kese lañ am mooy liggéeyal sëriñ bi pour que euh, màggal bi su ñëwee xelam mën a dal kon nag mbokk yi ndoxum Tuubaa dégg ngeen li ñu wax màggal gi moom ndox mi nekk ci réew mi yëpp buñ ko fi indiwee nit du tax ndox mi doy kon warteef la ci képp koo xam ne da dëkk ci dëkk bi ak képp koo xam ne ndëgum sëriñ bi sa ndëg la nga bàyyi xel ndox mi ci sakkanal ko ci yaxanal ko nga bàyyi xelit ne fépp foo gis robinet bu yàqu wala boog ndox muy tuur ci mbedd mi te kenn jëriñëwu ko nga fexe ba ñu indi ci ay saafara boo jaaree ci waa Touba ca kanam ak kuréelu taxawu ndox mi ndax warteef la nag ci kenn ku nekk ci ñun ñu xam ne ndox mi dañ ko war a sàmm dañ ko war a saytu dañ ko war a yaxanal ndax yàq baaxul te yii nag xéwal la goo xam ne ni suñu borom moo nu ko baaxee waaye Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul moo ñu teggil di làmb suñu jiba di fay ndox kon loolu war naa tax kenn ku nekk ci ñun bàyyi xel ne booy duy sa bassin balaa ngaa tëdd tëj ko moo gën nga koy bàyyi mu fees dell di rembet di dem ci bodd yi kenn ku nekk buy tabax na bàyyi xel ne fayul ndox kon robinet ba mu def ca mbedd ma na ko sàmm ba bu noppee ca la muy liggéey mu tëj ko waaye ñi nga xam ne dañuy yëngu ci ndox mi di ci jëlee ay koppar war na ñoo xam ne liggéey bii seen liggéey la dañ cee war a dugal seen loxo ndax ñoom kat ci ndoxum Touba mi nga xam ne askan wi seen yitte mooy nu ñu def ba naan mooy nu ñu def ba sangu mooy nu ñu def ba laab mooy nu ñu def ba togg am na ñoo xam ne seen yitte mooy nu ñuy def ba ndox nga xam ne seen ñaari dërëm du ci dem nan la ñuy def ba di ci liggéey ay koppar ñooñu nañ bàyyi xel ne liggéey bii seen liggéey la kon lépp ñëpp lenn ku ne ngi ci biir na ñëpp ànd ñu jàppandoo saytondoo yaxanandoo ndoxu Touba bu boobaa yaakaar naa ne mar wi dana wàññeeku te ndox bi da daj fépp te mën naa dem ba set mën naa dem ba sell mën naa dem ba deex ndax sëñ Touba kat ñàkkul dara mbokk yi maskani Touba baat misrak mi abijaayi xayri ma nabaat